maa ngi leen di nuyu yéen tamit euh, di nuyu bépp auditeur mm-hmm. di euh, wax sunu mbégte participer ci émission bi mm-hmm. voilà euh, ndax lépp li nga xam ne rek day bokk ci gindi société bi ak askan bi. Mm-hmm. ci mbirum santé dañ ku ñu si si ndax loolu mooy sunu sunu sunu sunu rôle. seen sacerdoce. mooy sunu sacerdoce ñu ngoog. d'accord dañuy tàmbale waxtaan wi ak euh, seen euh, kuréel bi dañuy dégg euh, pharmacie privée waaye aussi tamit am na lu ñuy duppee pharmacie publique apparemment tey rek ñu daal di tàmbali suñu waxtaan bi docteur ci fànn boobu li tax ñuy wax syndicat des pharmaciens privés seulement au lieu de syndicat unique boo xamante ni dafay regrouper képp ku yëngatu ci wàllum pharmacien fii ci Sénégal ñu tàmbalee waxtaan bi ci aspect boobule. waaw aspect bi nga posé nii am na solo. Mhm. ndax ñun dañu ñëw fekk fii syndicat des pharmaciens privés mooy li nga xam ne euh, pharmacie yi nekk yi na gën a xam mooy yi ñu nekk ci biir dëkk bi di dispenser garab yi ak euh, grossiste yeeg yooyu yi nga xam ne daal daanaka ay euh, citoyen ñooy investir seen alal gannaaw bi leen autorité bi joxe autorisation. Euh, ñu fekk fi loolu mais li tax question bi am solo mooy. Mhm. at yi yëpp ñu ngi waxtaan pour xool nu ñuy demee ci wax ni maanaam am benn euh, kuréel bi nga xam ne pharmacien yëpp dañ fay ànd nekk ndax ku ni pharmacien rek wax bokku métier te euh, xëy na beddi beddi ñi wala ñii regrouper wu fii ñii nekk fële. yaakaar nañu li gën mooy ñun ñëpp ñu dajaloo nekk ci benn association. Mhm. donc daal dañ ñu fi fekk la te ñu ngi ciy waxtaan. Mhm. ak ñun suñu biir déjà ak suñu collègues yi pour xool par exemple bu ñu fi def suba benn. Euh, unité union en tout cas association bi nga xam ne daal képp kuy pharmacien di nga ci di nga ci bokk. Mhm. kon su ma la déggee am na ay jéego yoo xamante ne commencé ngeen ko teg ngeen di dundee yaakaar jamono jile. effectivement jot nañ ci waxtaan ba commencé liggéey ci li ñuy wax les termes de référence. Mm-hmm. Euh, parce que xel bi lan la rek mooy bu ñu ko defee benn si biir mu am ay ay section mm. xëy na ñi nekk ci public bi am d'habitude on parle pas de pharmacien public mais ñi nekk ci public mooy ñi nekk ci hôpital yi ñi nekk ci centre de santé yeeg yooyu di fa ak université foofu yëpp en di jàngale ñooñu tamit xëy na seeni i mbébét wala seeni i préoccupation dina xaw a wuuteeg pharmacien d'officine bi wala fabricant de médicament bi. Mhm. moo tax xel bi mooy dajale ñëpp parce que ñun ñëpp ñoo bokk mbirum garab ak lépp lu lu laal ci garab mais xëy na ci sunu yëngatu dina am ay wuute ki nekk ci hôpital bi xëy na lim li li préoccupation du yam ak ki nekk ci biir dëkk bi di di di dispenser garab. Mhm. Euh, ngeen yor kuréel boo xamante ne xam naa ne am na ni nga xamante ne noonu la ñu war a def ngir mën a fa adhérer tey boo ñu doon wax xam naa li mu pharmacien yi yi regroupé seen association bi mën na am doo am les chiffres en mais tey naka la ñuy def ba mën a bokk ci seen kuréel bi le docteur Diop. voilà euh, bépp pharmacien bi nga xamee ne tey am nga sa pharmacie. wala nekk nga ci grossiste privé di liggéey wala nekk nga ci établissement yi nga xam ne ñooy defar garab yi di liggéey euh, euh, mën nga ñëw bokk ci syndicat bi. Mm-hmm. pour nga bokk da ngay adhérer li ñuy wax inscrire d'abord à l'ordre des pharmaciens. Mm-hmm. il faut que nga nekk ki nga xam ne sa inscription à l'ordre validé nañ ko nga ñëw euh, joxe sa droit d'adhésion de cinquante mille francs. at bu nekk tamit nga cotiser euh, li nga xam ne mooy cotisation annuelle bi. Mhm. Euh, gannaaw bi nga sayto li ñuy wax statut yi. ak règlement intérieur bi ba gis ne yow li mën nga ci mën nga ci bokk. Mhm. maanaam du ëpp du force. pharmacien mën na ubbi mu ni man syndicat bi kat bokkuma ci. Mhm. wala kenn ni ah lii gis naa ni gis naa sama bopp damay ñëw bokk. kon mu mel ni am na yeneen catégorie pharmacien yu bokk ci seen kuréel boobu. oui am na am na parce que tey boo seetee ñi nga xam ne ñoo nekk ci métier bi ñuy tuddee promotion de médicament mm-hmm. ñu koy wax nu mu gën a simple délégué médicaux yi ñoo mm-hmm. ñooñu daanaka dañu am seen association tamit bi nga xam ne moom moo leen regroupé mm-hmm. ñooñu comme am na seen association xëy na gisuñu intérêt ñu bokk ci syndicat bi bari na tamit pharmacien yi nga xam ne ñu ngi ci établissement yi nga xam ne ñooy defar garab yi wala ñooy distribuer garab yi en mooy gross ñuy wax grossistes ñooñ ñooñu tamit ñi ci bare euh, bokkuñu syndicat yi parce que da am na association yi nga xamante ni déjà euh, moo leen di dajale. Mm-hmm. waaw d'accord ngeen di farataal di porter ay combat ñu buggoon xam rek euh, ginnaaw bi ngeen sosé donc seen association boobu boobule wala seen syndicat boobule ba tey ji on est en deux mille vingt deux yan action vraiment ngeen mené euh, ci ci seen ci seen kuréel boobule depuis bi ngeen ko taxawalee bien sûr. waaw buñ ko taxawalee ba léegi euh, dina jafe ñu wax ko yëpp ndax ñu ko taxawal daanaka ay années quatre vingt. man maa ngi ci dugg nekk secrétaire général 2015 biñ jógee 2015 ñu dem assemblée générale sama euh, naataangoo yi euh, am yaakaar ci man fal ma président. 2018 renouveler ma sama mandat 2020. Mhm. xeex yi nga xam ne tey jii def nañ ko parce que aussi syndicat bi dafay am na euh, ay revendication yi nga xam dina ko porter. Mhm. mais am na aussi beneen rôle bu muy jouer mooy participer ci lépp li nga xam ne moo jëm ci mbirum garab muy réunion di ay stratégie di ay euh, atelier de de de, de validation atelier de conception maanaam daal lépp lu jëm ci mbirum garab gis nañ ne autorité maanaam ministère de la santé ministère du commerce ak yooyu yëpp dañu ciy boole. Mm-hmm. Euh, revendication yi ni am te am ci ndam yenn yi ci ndam benn bi mooy garab yu bon yi nga xam ne mi ngi circuler ci réew mi mhm. boobu nekk na un combat phare mhm. am nañ ci nag ay ndam parce que bu ñu fàttalikoo deux mille dix dem nañ ci ànd ak waa ordre xeex ba ñu jàpp ñaari euh, trafiquant euh, jugé leen yoon daan leen mhm. ba ñu mujj sax Euh, defal kenn ki grâce déggoon ngeen syndicat li mu ci taxawoon. Mhm. taxawoon ngeen ci kay. tout à fait. Mhm. Euh, bu ñu jëlee Covid bi bi mu amee pharmaciens yi non seulement ñoo jëkk teew maanaam garab yi nga xam ne ñoom lañ jëkk utiliser pour faj ñi am Covid secteur privé bi la jógee. parce que boobu yàlla dafa kii situation bi mu nekkoon na de sorte que euh, pharmacie nationale d'approvisionnement mi centrale d'achat bi nga xamante ni mooy jox garab service public yi amu ko woon waaye euh, grossiste privée li ñu njëkk def mooy jël stock bi yëpp jébbal ko autorité yi ndax xamoon nañ ne dañu nekk situation épidémie biñ fa jógee tamit dajale nañu muy pharmacien yi ku si nekk déjà gox ba nga nekk jàppale nga ñi la wër si ay gants ay gel ay matériel euh, comme ay eau de javel ak loolu yëpp euh, taxawu nañu tamit Euh, au ministère de la santé grossistes yi joxe nañu matériel joxe nañu ay médicaments joxe nañu ay consommables joxe nañu ay dispositifs yu aidé ñooñu mm-hmm. euh, bi ñu tolloo tamit ba gel bi jaayum gel bi xaw a jaxasoo ci réew bi parce que bu nu fàtte ne bi épidémie bi dooree gis nañ fi fu nekk waaye taxaw fa yor ni damay jaay gel gel yi bleu yi violet yi jaune et cetera prix tamit xaw ëpp loxo ministère du commerce woo woote ñun bokkoon nañ ci réunion boobu bi ñu ñëwee li ñu njëkk wax mooy pharmacien bi kat dootul wutati bénéfice ci gel yi te moo tax tey bi fa jógee gel yi doon jaar ba ay deux mille mujjee six cent cinquante ndax pharmacien bi dafa ni man kat li ma jëndee xëy na li ma ciy teg du bëri mooy juste pour lu ma permettre gérer sama charge de structure ay daanaka neuf pour cent loolu lañ ci teg loolu nekkoon na lu am solo. te bu fekkoon ni tey dañu nekk jiital euh, euh, économie de naat am nañu manque à gagner. Mm-hmm. bu ëpp ay trois cent millions. Mm-hmm. mais li ñu wax moment boobu mooy ñun syndicat ànd ak ordre des pharmaciens mooy dëkk bi du am épidémie pharmacien bi ni damay wut bénéfice loolu muy lu am solo. Mm-hmm. Euh, ba tey jii ndax kat ñu fàttali ne moment boobu ministère du commerce daf ñu woon ay ay weer lañ koy def après mais ba léegi daanaka prix yooyu ma nga fa mu nekkoon. Euh, bu ñu jogee ci loolu dañuy wax exercice illégal wuute mu wuuteeg trafic xam nga wax naa sànq garab yu bon mhm. mais exercice illégal mooy ki nga xamee ne yoon joxula autorisation ba pare ngay yëngu ci mbirum garab mhm. mën na nekk sax pharmacien bu diplômé mais amagul autorisation mën na nekk beneen professionnel de la santé bu waroon consulter bind ordonnance mais am ay garabam di ko joxe mën na nekk aussi ki nga xamee ne moom du ci benn waaye ubbi na boutique am bind ca pharmacie di def mbirum pharmacie loolu existe illégal mhm. ak danger yi mu am yëpp mhm. euh, am na aussi at yële passé def nañ ci beaucoup de journées de sensibilisation sur les méfaits euh, des faux mhm. loolu tamit bokk na ci li ñu def gannaaw comme li ma wax sànq bare na atelier yu bare dem nañ fa euh, joxe suñu xalaat ci li nga xamee ni mooy conception de politique et de programme wala validation de documents et chaque fois aussi dinañ fexe ba jiital euh, euh, njëriñu askan bi balaa ñuy jiital njëriñu pharmacien bi ci boppam. Mm-hmm. Euh, mu mel ni foofu leer na euh, laata ñuy xuus ci li nga xamante ne moom moo di euh, pratique illégale bi nga doon wax mais docteur de plus en plus dañuy seetlu que ci Dakar particulièrement ci yenn région yi que ay produits dañ koy dañ koy saisir mu mel ni nag loolu du ñu ne du ñu ne duñu du ñu ne guleet d'autant plus que lu ci bëri saay sax autorités yi dañuy faratal di indexé yow ci sa wàll wàllu bopp nan nga apprécier boobu ba léegi ñu ciy wax di ci wax mais terewul euh, trafic de faux médicament bi mun nañ ne ñu toog semaine wula weeru lëm te du ñu dégg que ne saisir nañu ay ay ay ay loo xamante ne ci koppar bu takku lañ koy xayma. dëgg la li nga wax dafa am solo. Mhm. et dañ ci profité déjà di euh, euh, féliciter waa douane. waa gendarmerie waa police waa ministère du commerce parce que ñooñu nekk ci terrain bi tamit euh, di di di xeex. Mhm. Euh, ñi nga xam ne ñoo fi indi trafic bi. Mhm. mais li ñun li ñu jàpp mooy li ñu tuddee volonté politique rek moo fi manqué. Mhm. ndax gis na ñu ne trafic de bois bi bi mu posé problème ñu criminaliser ko. trafic de bétail bi mu posé problème ñu criminaliser ko ak yeneen donc ñu jàpp ne tey jii balaa sax ñu egg si criminalisation waa euh, commerce. waa euh, ministère de la santé taxe yi yi nga xam ne moom la ñu yor muy maanaam outil outil juridique yi leen jox mën na leen permettre tey képp ku ci nekk ñu daan la daan ñu sab sab mais trafic bi dama yaakaar ne dafa am lobby bu mag bu nekk ci ginnaaw garab yi ba tax na état bi di ci xaw a euh, en tout cas ñun li ñu gis mooy xeex bi des na de naam naam douane bu ñu xoolee li mu jàpp ci deux mille vingt et un bi ëpp na deux milliards. lu am solo la te dañ encore une fois du lu ñu xeeb mais dañ jàpp ne tamit tant que tant que ñu ngi tuddee receleur pour ñun ñu ngi fi trafic bi foog mu am. Mm-hmm. je m'explique su fekkee ni tey man bu ma dugalee garab Sénégal euh, heure bu mu mënta doon gis naa ñu pare pour jënd ko marché noir bi ba pare tegaat ko euh, sur le marché jaay ko nit ñi man dinaa eggale di ko def mais bu fekkoon dëkk di góorgóorlu ñu ba receleur yooyu newatuñ fi. ñu jàppale bu baax ci trafic bi dëkk yi nga xam ne yëpp fexe nañu ba doo gis ku ubbi boutique bind ci pharmacie wala lu mel ni kër sëriñ bi amu fa ku fa dugal garab tamit xëy yaa ngi jaar ci internet bi te melul na comme Sénégal donc pour ñun il faut tant que xeexuñu see receleur la te bu ñuy wax receleur mooy dépôt illégaux yi nga xam ne tey ñu ngi dëkk bu sell bi di Touba. Mm-hmm. muy kër sëriñ bi muy marché yi nga xam ne borom table yaa ngi fa tant que ñu ngi fi jàpp nañ ni trafic bi fi jóge mm-hmm. Euh, euh, mu mel ni kon euh, le mal et un beaucoup plus profond parce que énuméré nga ko am na ay gox-goxaat yoo xamante ne foofu ils sont implantés au au su de tout le monde n'empêche ba léegi ñu ngi leen di ñu ngi ñu ngi ñu ngi liggéey comme il se doit mu mel ni kon absence de volonté politique bi am na quelque part foo xamante ne c'est tout à fait vérifié. dëgg xam nga Sénégal dañ nañu tey jii yow booy pharmacien nga génn école. amoo sañ-sañu dem benn gox rek ubbi sa pharmacie il mm-hmm. faut nga xaar ba ministère ne ah gox bii kat gis nañu war na am pharmacie yow ak say moroom ngeen ñëw def compétition ki si gagné ñu ni ko yow lañ fay installé donc léegi nag ñu gis ay jàmbur yi nga xamante ni ñëw rek tabax seen wut ubbi seen benn magasin bind ci pharmacie. Mm-hmm. toog di jaay. Mm-hmm. li nga xamee ne ki nga xamee ne état bi def na ci moom alal formé ko ba pare sañu ko yaakaar naa keneen waru ko sañ. Mhm. te foofu liñ ci gën jaaxal mooy métier bu mel na pharmacie peut-être ak médecine la gën a bëri mais gisaguñu nit ubbi ni man kat damay ubbi cabinet d'avocat te fekk doo avocat wala cabinet notaire fekk doo notaire. Mhm. ñu jaaxle nag parce que jàpp nañ ne aussi profession bi nga xamee ne état législateur moo ni man maa leen jox monopole maa maa leen di protéger. organiser naa ko ba kenn du fa def lu la neex moo ko bëggee keneen bu ñëwee bëgg ko tamit war nañ ko mën a wax a ah, déedéet du noonu ñu jàpp ne donc manque de volonté politique bi lu lu lu fi nekk la lu réel la euh, te effectivement tant que loolu xeexuñu ko euh, le mal du fi jóge mm-hmm. ouais. d' accord mais tamit ci beneen fànn bi xam naa ne comme ci corporation bi nga bokk am na ñoo xamante ne dañuy yëkkati ay kàddu moo xam euh, c' est des propos à tort ou à raison askan wi dañuy farataal di yëkkati yooyu les kàddu di xam le ne am na ñenn ñoo xamante ne sax dañ leen di farataal di tuumaal yenn pharmacien yoo xamante ne dañ leen di farataal di tuumaal ndax ñoom dañuy revitaliser wu ci lu ñuy duppee les marché noir tey ji docteur euh, ndax lu ni mel Sénégal euh, am nga ci ay éco wala jot ngeen benn cas de dossier boo xamante ne seen i ñooñ jàpp nañ ko ci lu ni mel. Euh, am nañ ci ay éco mais il faut que d'abord ñu leeral benn mbir. allez-y. mooy tey jii pharmaciens yi mille trois cent lañu. Mm. mille trois cent pharmaciens bu si amee ñaar wala ñett ñuy jalgati te ñuy nekk réew bi nga xamee ne dafa am ay organe de gouvernance maanaam ñi nga xamee ne yoon jox na leen doole pour ku wàcc yoon ñu teg la ci yoon ñooñu di seetaan bu amee juróom-ñaar wala juróom yu jalgati gënaluñu bu doon sago bu doon sago duñ ci tudd benn pharmacien. Mhm. aussi ñu préciser ko syndicat du jàppale benn pharmacien bi nga xam ne. Mhm. jàpp nañ la si dul yoon. Mhm. loolu bi mu amee effectivement nag dinañ ci am écho. am nañ ci écho euh, ñun suñu bopp am na luñ ci jot a def. ndax kat ñun syndicat. Euh, mandat bi ñu nekk ak bi ko jiitu tuuti dañuy def le tour seeti police seeti gendarmerie douane relation bi ñu am léegi daanaka masul am parce que douane léegi fu mu jàppee ay garab sax balaa may def dara damay woote pharmacien ñu intagal ma fi kenn mu jàppale ma ma xam garab bi naka laak noonu la. Hmm. biñ liggéey boobu bi ñu koy def aussi am na information yu ñu jox aux pour dire que kat ñun yaakaar nañu lii ak lii ak lii wala ñii ak ñii ñu ngi ci. parce que nag suñu bëggee li olof di wax naan bayal sa wewu tànk bayal sa buntu kër ba noppi balaa ngay def loolu ñun dañ koy dañ koy reconnaître mm-hmm. mais je peux assurer que sur les mille trois cent pharmaciens xaw ma ci man bokk xaw ma si juróom mm-hmm. juróom yu ci nekk mm-hmm. waaw te wax ji nag bari na mais aussi ñun luñ ci mas a jot tamit wax nañu autorité bi nekk jot nañu information bi exploité ko bu yàggul bi ñu jàppee garab bi doon génn dem Mauritanie syndicat ci bopp bind na ñi mu a bind. Mhm. ne information bi am nañ ko tudd nañ ci diw diw ak diw. yaakaar nañ ne nag loolu buñ koy def mooy jàpp euh, nangu nañ ne il y a des problèmes mais aussi. tant que ñi yor décision yi yor contrôle bi yor sanction bi aussi defuñu ni mu war a defee. Mm-hmm. xëy na tamit euh, ñi ñi ciy tudd duñ ci gaaw a jóge. Mm-hmm. Euh, euh, sànq docteur yaa ngi koy wax par rapport ak seen kuréel bi bi mu fi taxawee ba léegi eh, ak yi nga xamante ne def na ko fàttali nga ñu sax ne am na ay médicament yu ñu am yu ñu nangu woon foofu sa Daaru Musti waaye tamit lépp lu jëm ci kii fii jëloon garab bi te ñu mujjee ko gracier mu mel ni boobu ba léegi am ngeen ci ay ak yi lu tey ji rek docteur sama laaj bi ma la fas yéene laaj ndax jàpp nga ne fii ci Sénégal euh, tey am ngeen espoir euh, trafic bi daal di ñu daal di koy arrêté mu jeex fi ba euh, faw am ngeen ci espoir. Hmm, bu ñu waxee de ñun syndicat amuñu ci espoir. Hmm. ndax gisuñu déedéet dañu gisul acte yu fort yu nu posé ba bu ñu jox espoir maanaam réew mi am na dooleem réew mi am na. argument juridique réew mi am na tout ce qu'il pour mu daj boo gisee di douane di daj xam nga su ma leen la douane ci benn ab jàpp na lu toll ci deux milliards. Mhm. <laughs> du lu ndaw. mais chaque fois aussi ñoom bu ñu jàppee dina ñu informé def li ci war mais bu fekkoon ne aussi euh, dinañu mobiliser ñin war a mobiliser ñëpp ñu nekk ci dinañu commencer am espoir. Mhm. maanaam mi ngi wàññeeku te encore une fois. bu ñu fexe woon ba approvisionnement bi ñi dugal ci ñu verrouillé foofu ba kenn dootu ko dugal ñi képp kuñ ci tudd ñu def liggéey bi ci bar pour xam naam ndax yaa ngi ci wala newoo ci bu ñu gisoon acte yu fort yu nu posé dinañ ci dinañu am espoir mais fi mu nekk nii on ne perd pas espoir. Mhm. mais gisaguñu actes yi nga xam ne fort yi posé ko yi nga xam ne ni ah am nañ yaakaar ni dina fi jógee ci fan yi di ñëw wala ci weer yi di ñëw. Mhm. Euh, euh, monopolisation wu médicament par état du Sénégal ndax euh, jàpp la ne aussi mën na expliquer phénomène trafic bi quelque part même si du ko expliquer à cent pour cent. bon comprendre ma loo tuddee monopolisation par l' du Sénégal par état bi du moins. monopolisation du médicament par l'État ndax mënul nekk euh, cause trafic bi ba xam munuñu ko élargir euh, jox ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngatu ci wàllu wérgu yaram maanaam pharmacien yi ak médecin yi ba xëj na ñoom ñu mën a def commande mën a dugal garab ci dëkk bi waaw man li ma loolu li am Sénégal amul monopolisation de l'État d'accord c'est-à-dire dafa am pharmacie nationale d'approvisionnement mm-hmm. moom mooy euh, importer wala jënd biir Sénégal en gros pour jox district sanitaire yi hôpital yi centre de santé yi mu wàcc ba ci suuf au besoin mm-hmm. mu am nag yeneen grossiste répartiteur privé mm-hmm. ñooñu effectivement yoon état bi jox na leen possibilité ñu commander en gros mm-hmm. wala jënd fii localement maanaam bu ñu importé wul jënd localement jox pharmacie yi parce que pour ñu mën a assurer la traçabilité du médicament parce que garab aussi pour mu dugg Sénégal il faut que bu eggee ba douane. direction mhm. de la pharmacie ni d' accord naa na dugg. donc pour ñu mën a suivre le médicament ñu organiser que de sorte que dañ jox licence ay grossistes privés ne leen yéenay importé wala mhm. yéenay jënd en gros soo koy jox pharmacie. Mhm. dafay tax pharmacie boo dugg garab boo fa jël ñun la fii lañ ko jëndee. lu ñu la limal lu may ci ñeenti ñooñu su ko defee ñu mën a xam kooku fan la ko jëlee et cetera. Mm-hmm. donc monopolisation bi amul. Mm-hmm. xëy na dañ jàpp ne pharmacie nationale départementale may jox Sénégal yëpp garab mais mm-hmm. demewul noonu. waaw mmh. et peut-être même préciser que groupe privé yi. daanaka ci garab yi dugg ci réew mi wala yéen fii jaay soo jëlee téeméer juróom ñett fukk yi daanaka privé bi ñoo koy dugal si wala ñoom ñoo koy commandé fii jox pharmacien. tey docteur tamit euh, ndax yomb na ñu distinguer lu ñuy wax euh, le vrai du faut médicament ndax jamono lay dox yenn saay peut-être nga dem au niveau de la pharmacie ñu bindal la garab bi euh, bindal la ko ne la tel garab lii lay jar nga ne mun naa ko jind feneen te ci beneen prix bu gën a wàcc te même garab bi la ndax tey jii ci ñun les sénégalais lambda ngir askan wi mu ñuy déglu ndax am nañu possibilité distinguer Euh, le vrai du faux médicament. d'accord foofu déjà euh, li ñu ci jëkk tontu mooy. Mm. ça dépend fi nga ko jëndee. d'accord. et rassurer sénégalais yi ñuy déglu que ne képp ku jënd garab ci pharmacie. Mm-hmm. wala nga jënd ko ci poste de santé asafala centre de santé wala hôpital wala district mu jogee district garab bu baax la parce que dafa jaar fi mu war a jaar maanaam paiement la jaar dugg réew mi te am na tout ce jaar na fi mu war a jaar yëpp wala ci grossiste la jaar. Mhm. léegi nag ki jënde garab feneen maanaam képp nga xam ne du biir hôpital. Mhm. du biir centre de santé du biir pharmacie. Mhm. nga jënd ko feneen kooku exposé kooku moom daanaka du mu jënd ñun si sunu si sunu définition jënd na un foo médicament. parce que pour ñun garab bi heure bu génnee ci loxo professionnel de la santé bi surtout sax la professionnel du médicament wala mu génn circuit bi nga xam ne moom lañ tracé ne garab bi jaar. buy dugg ci réew mi ba bu ko nit ki dee jëriñoo gile bépp garab bu génn ci circuit boobu rek tu es un faux. Mm-hmm. sauf autorisation express maanaam du docteur de la pharmacie. Mm-hmm. donc maintenant pour maintenant joxe une réponse technique. allez-y. tey faussaires mm-hmm. ñu ngi reproduire garab yi de sorte que boo dul un professionnel. mën nga bañ a xàmmee le faux du vrai. et ça dañ koy dund dëkk yi nga xam ne développé na nga xam ne doo fa gis ay marché bi jaay garab doo gis fo euh, dépôt illégaux ak yooyu internet bi la ñuy jaar te buñ buñ la présenté garab bi daanaka doo mënoo ko xàmmee ak garab bi jaak pharmacie parce que ñi def foo dañuy jéem a euh, reproduire la garab bi ba nga xam ne du mënoo ko xàmmee. Mm-hmm. maanaam faussaires yeeg ñi def contrefaçon ñu ngi def lépp. pour garab yi ni jaay niroog yële mm-hmm. mais aussi am na réponse su fabricant yeeg ñooñu. Mhm. parce que et Sénégal sax mi ngi ci mi ngi ci bëgg egg te am na sax commencé gum na mooy léegi dinañ def ci saw garab yi ay code barre ay QR code en tout cas ay ay signes yi nga xam ne dina permettre même yow mi jënd garab ak sa téléphone mën nga kane information bi euh, code bi wala code barre bi. Mhm. mu wax la garab bi fan la jaar ba egg si yow. Mhm. loolu Sénégal am na commencé na fi am. mais am na dëkk yoo xam ne law na fa law bi nga xam ne moo lay mooy tax nit ki mën a xàmmee bu baax beeg bi nga xam ne moo jóge ci feneen. Mm-hmm. mu mel ni eh, docteur Diop processus bi nekkul lu yomb euh, rawatina nag euh, ba léegi dañuy des ci yenn dëkk yi parce que pratiquement euh, xëj na lu ñu développé développé am na lu bari loo xamante ne Dakar doo ko fi gis mais boo xasee ba génn ci yenn dëkk yi certainement foofu ngay gën a visibilité foofu lay gën a nekk. ba moom moo waral ci yenn dëkk yi yenn saa yi dañuy signaler que ne am na ay dépôt identique yoo xamante ne day ndiru ay pharmacie moo xam ay ñu daal di koy taxawal ci wetu ay structure de santé wala sax mu dem ba ñu koy taxawal à quelques mètres des pharmacies pharmacie boo xamante ne c'est une pharmacie bu ñu reconnaître la euh, ci cas de figure yooyu tamit docteur ndax dina yomb ci sénégalais lambda bi wala ci patient bi mu mën a distinguer réellement euh, la bonne pharmacie ak euh, le sens contraire contraire euh, dañuy ànd vraiment dañuy maanaam partagé wu avis bi li nga wax léegi dañ ci dañ ci dañ ci ànd complètement allez moo tax ñun ñu ni woon ñun ñun syndicat suñu gis-gis mooy hmm. doo fi bàyyi ki nga xam ne mooy mooy un amul amul autorisation jalgati na yoon euh, mu ngi jaay faux médicament ba pare ni ni ñi moytu leen ko hmm. tey jii dañuy jël toujours exemple dëkk bu sell bi di Touba hôpital boo ci génn wala maanaam fépp bërëb fajukaayu nit doomu aadama boo génn li ngay jàkkaarloo ay dépôt yu yu aligné la pharmacie privée amul mukk ñaar yu aligné mm-hmm. foo gis ñaari ñaari boutique yu ñu bind pharmacie xamal ni foo yoon mayul ñaari pharmacie yi ñu jege lu néew deux cent mètres bu dee Dakar la plateau trois cent mètres bu dee génn nga Dakar sa quatre cent boo génnee ci région yi mm-hmm. mais moo tax ñun ñu xam nga tey boo nee nit ñi moytu leen bu leen ko def te kooku tere woo ko li muy def tamit du sotti. Mhm. moo tax ma ne li nga wax dañ ci ànd. te c'est foofu lañ doon ñaaxee autorités yi ñun suñu position sur la question toujours mooy bépp euh, la comme ni ñu koy waxee ci ci tubaab mooy la fermeture de tous les points de vente illicites. Mhm. maanaam fépp nga xam ne nit mi ngi fa di jaay garab wala di joxe garab te amul autorisation dañ ko war a tëj ba pare. Mhm. tëj ba pare nag moo après nag ñu xool naan nan la ñuy wàññee leneen mais loolu mooy première chose bi et que d'accord nañoo ak yow que ne tant que ñooñu ñu ngi fi dina jafe aussi askan bi xàmmee yenn saa yi ban mooy pharmacie bi ak ban moo dul pharmacie. Mm-hmm. Euh, tey mu mel ni euh, phénomène bi euh, si je peux me permettre c'est un marché fructueux ndax bu ñu commencé émission bi ba léegi d'après li ngay expliquer mu mel ni c'est toute une chaîne de valeur ah am na ñu bëri ñoo xamante ne ils sont dans le secteur tey docteur ndax mënuñu jàpp ne ñi yëngatu ci wàllu woowu lépp am na ñoo xamante ne maanaam facilité moo leen ci tax jóg ba moo waral laxisme bi wala manque de punité impunité bi moom mooy expliquer phénomène bi moom euh, muy muy muy prendre de plus en plus des ampleurs considérables waaw ñun au niveau de syndicat dañ jàpp ne ñaar yooyu la c'est-à-dire que impunité ak bëgg am xaalis te doo sonn impunité mooy nit ki nekk ci li nga xam ne yoon war na dal ci kawam ndax waru ci nekk ñu bàyyi ko seetaan ko ak tamit bëgg am xaalis te bañ a sonn effectivement pour ñun lool la bari explication yu ñuy jox mm. population bi jànguñu nit ñi xamuñu mais <laughs> tey jii demal dëkk bu mel na biir Afrique ba Afrique demal Maroc demal Tunisie demal Algérie mënoo fa gis nit taxaw ni damay jaay faux médicament ci taabal wala ubbi boutique am wala nekk mu nekk ci marché c'est pas possible parce que autorité yi dañu ko xeex ne lii bu mënul am suñu réew duñ ko nangu. Mm-hmm. donc d'accord nañoo ak yow ci loolu parce que simplement aussi euh, le faux médicament est extrêmement rentable. Euh, études yi ñu def yëpp wane ne daanaka moo gën a rentable bépp bépp bépp mhm. jarul maanaam jàpp dañ ne xëy na boo si mille francs mën nga si am cinquante mille. Mhm. parfois. Mhm. loolu moo tax effectivement ñu bari nekk ci parce que xaalis bi bari na ba pare gisuñu ko leen ko tere. d'accord euh, dañuy des ci wàllu woowu docteur ci ay jamono ameloon ngeen noonu ay ay ay échange ak euh, autorités yi ameloon ngeen ci ay discussion sax ak autorité sanitaires yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa douane ndax euh, ci ay jamono mun nañ ne ay weer wii moo ci ginnaaw dañu jàppoon que ne am na ay yenn médicament yoo xamante ne dañ ko naroon changer d'appellation au lieu ñuy nekk médicament dañu naroon devenir li ñuy duppee complément alimentaire ba moom moo waraloon sax ñu ñoom ñu ci doon sàkku ne njëg gi dinañ ko yokk mu indi woon donc ay ay négociation entre yéen ak ñëpp ñu yëngu ci wàllum wérgu yaram bi ak euh, les autorités douanières euh, tey ay weer wala yàgg-yàgg gën ngaa yàgg un an euh, ngeen doon indi ay orientation par rapport à ça tey lan ngeen ñu mën a wax justement ci lu ni am ngeen ci ay jéego wala ba léegi dañu nemmeeku hausse yooyu ci yenn produits pharmaceutiques yi mu soxaloon. am nañ ci ay jéego yu positif. Mhm. te foofu encore une fois dañuy rafetlu euh, taxawaayu douane ak ministère de la santé. ak mhm. ministère du commerce. parce que mhm. waxtaan bi ñun la. syndicat ordre ministère waxtaan nañu. ndax li indi réeróo bi lan la ñun docteurs yi en pharmacie dañu am suñuy texte douane am texte am taxe douane nag du taxe Sénégal mais international la ñu waroon toog xëy na waxtaan ba ni ñun kat Sénégal nii la ñu bëgg doxalee euh, comme loolu amul woon réeroo am douane appliqué ay taxes am ñun aussi ñu taxaw ni noonu suñuy taxes lee la wax mais yàlla def na ni waxtaan nañu bu juboo te garab yi nga xam ne yooyu yëpp daan su ma nee bu doon bu doon tey jii téeméeri garab euh, juróom ñeent fukk yi am nañ ci déggoo ba. garab yooyu seen prix yokkuwul. Mhm. parce que bi ñu bi syndicat bi génnee tamit ba waxtaan yi am seetlu ngeen ni garab yooyu yëpp seen prix delloowaat nañ ko fa mu nekkoon. Mhm. mu des nag ay quelque parce que tey jii euh, boo jëlee ma jël benn exemple boo demee tey ji système harmonisé wu douane nga xam ne euh, texte la bi nga xamante ne international dañ lay wax ne la lépp luy euh, polyvitaminé garab bi nga xam ne ay vitamines li nga ay vitamines rek a nekk du garab. Mhm. parce que vitamine rek du faj feebar day ànd ak leneen. Mhm. pharmacien bi dina la déedéet vitamine bi bu eggee bii dosage maanaam bu doon dañ ko war a natt bu eggee junni nekkatul complément day mujj nekk garab ndax day faj li mhm. donc si looloo des ñu waxtaan si ba xam ñun nag xam nangu nañ ne il faut que ñun côté médicament yi ñu am lu ñu bàyyi. Mhm. douane tamit nangu na bàyyi lu bëri. pour que xëy na bu amee yu yokk tamit du bëri mais wax naa ko léegi daal quatre vingt dix pour cent pratiquement si liste bi am nañ ci déggoo. Mhm. mu des dix pour cent bi te ñu ngi ciy waxtaan. Mhm. Euh, dix pour cent bi ngeen yaakaar ne xel mën na cee daal. waa xel mën na cee daal parce que lan la ñu wax mooy. même bu fekkee ni tey jii d'accord nañ du médicament lu faj ndax garab aussi ñun tamit am na lu ñu jàngal ci mbirum faj. Mhm. mais lan moo ci nekk état bi dafa am ay taxes yoo xam ne état du Sénégal moom moo koy percevoir ñu ni kon même bu ñu eggee foofu li nga xam état bi def na ko ci suukar bi def ko ci ceeb bi maanaam lu toll lu benn TVA état état ni man kat comme lii ku feebar moo koy jëriñoo man dama ci sama teew naa ko teggi ñu ni ñun jàpp jàpp nañu bu ñu waxtaanee dans ce sens teg plaidoyer bi mën nañ ci am euh, résultat yu positif état bi ni d'accord mën nañ ko bàyyi fa mu nekkoon du du garab mais man aussi sama TVA ma ci tegoon ma dindi ko parce que euh, euh, pour doomu aadama bu feebar wala bu yaram moom sutante lañ koy moo koy jëriñoo. Mhm. Euh, docteur Assane Diop dañu daan dégg lu ñuy wax euh, convention médicament euh, tey mu mel ni technique terme boobu c'est un peu technique convention médicament lan la undu ak tamit lan mooy retardé effectivité bi nga xamante ne moom mooy convention bi walla ba léegi ratifié nañ ko. waaw euh, lan mooy convention Médicrime convention Médicrime dañ jàpp ne conseil de l'Europe moo ko initié maanaam si dëkk tubaab yi sax daanaka ñoom ñoo jëkk taxaw ne euh, il faut ñu am benn euh, benn kayit bi nga xam ne mooy lëkkale réew yu bari pour ñu ànd xeexandoo. Mm-hmm. loolu mooy spécificité Médicrime te Médicrime lan lay def dafay criminaliser maanaam dañuy jàpp ne tey jii kuy ku nekk ci mbirum garab yu bon yi muy da koy dugal ci réew. donc koy jaay wala nga stocké ko fenn di xaar ku ñëw jënd ko yow yaa ngi mel ne kuy doomu aadama donc criminaliser le trafic des produits médicaux illicites. Mm-hmm. Euh, lii Medicrim indi lu bees mooy yamatul ci garab. Mm-hmm. maanaam même seringue bi nga xamante ni nit ñi da koy jël war ci def garab xëy na euh, piqûre doomu aadama bu dee foofu sax waaye day defar faux wala kayit yi mu war a àndal ni nga koy trafiqué kooku dafay dugg ci biir. Mhm. moom la ñu tuddee les infractions assimilées. Mhm. mais li ci ëpp solo mooy réew bu ko certifié rek ak yeneen réew yi da ngeen di ànd mel na yéen bokk léegi. Mhm. dama koy wax toujours ma ne xëy na Sénégal douane lu mu liggéey liggéey liggéey mënul lu dul xaar li waaj dugg ci réew mi wala dugg ci biir réew mi mu xeex ko. mais li xew ci réewu jàmbur mënu ci dara. convention médicament day tax maintenant état bu ko signé. ñoom dañuy collaborer dañu am benn benn benn benn même da de collaboration. Mm-hmm. dafay tax xeex bi gën a ëpp doole parce que garab yi kenn defarewu ko ci suñu réew yi feneen lañ koy defaree mu ñëw dugg suñu réew di lor doomu aadama. Mm-hmm. loolay convention Médicrim. Mm-hmm. donc àndandoo xeexandoo muy Europe muy Asie muy Afrique. fu waay nekk ñu àndandoo xeexandoo trafic des faux médicaments. Sénégal nag ratifié na ko. ñun gis war nañ document de ratification. mais diggante mu nekk ci suñu texte yi dafa am procédure dafa am leneen lu mu laaj foofu la Sénégal xawee yéex mhm. ndax naa baax na mais boo ko dugalul ci ci corpus juridique bu réew mi juge bi du ko mën jëriñoo ba buñ jàppee te jii kuy trafiqué mu appliqué ko mhm. maanaam nekkagul ci texte yi nga xamante ne moom la suñu juge yi moom suñu tribunaux yi moom la ñu mën a jëfandikoo loolu moo tax mu tardé te encore une fois dañuy ñëwaat ci problème volonté politique mhm. parce que gis nañ fi yeneen dossiers yi nga xam avec célérité lañ ko traité mu jaar fi mu war a jaar dem assemblée ñu defar le projets de texte de dëkk les projet de décret les projet d' li ñu war def yëpp ñu def ko mu gaaw bii nag comme ni nga ko waxee yéex na lool ñu jàpp ne foofu tamit ba léegi am na problème volonté du côté de notre euh, ci li ñu jàpp ñun muy ministère yi si war nekk yëpp muy ministère des affaires étrangères parce que fa lay jaar pour def Europe muy ministère de la santé ak yooyu. Mm-hmm. Euh, euh, docteur Assane Diop ci ay jamono am na ay jeunes diplômés yoo xamante ne dañu doon ñaawlu le fait que amul arrêté bu bees boo xamante ne dafay fixer sites yi nga xamante ne mun nañ fa taxawal ay nouvelles créations maanaam mun nañ fa taxawal. ay pharmacie yu bees yéen euh, tey jii lan moo nekkoon lan moo nekk seen position ci li nga xamante ne moom mooy lu ñu mun a tuppee arrêté d'ouverture euh, donc de nouvelles pharmacies xam naa pour ma wax ko ci fond olof dafay xaw a mhm. compliqué tout petit auditeurs yi ñu ngi jégalu dafa am yenn mooy moom boo ko buggee wax en wolof dafay xaw a compliqué mais j'espère que yéen a ngi comprendre euh, débat bi waaw foofu position syndicat mooy il y a de la place pour tout le monde. Mm-hmm. maanaam bépp pharmacien war mën a am foo nekk di liggéey mais nag dañ ko war aussi organiser parce que euh, arrêté boobu nga wax. Mm-hmm. dafa war a génn at bu nekk. ñun syndicat jàpp nañ ne war na génn at bu nekk parce que population bi la du pour pharmacien mais pour population bi la d'abord. Mm-hmm. gox bi nga xamee ne amul pharmacie amul dépôt bu ku feebar wala dox ay kilomètres. maanaam def dox euh, lu bëri wala ñu war oto yu dem fu bëri fu sori pour am garab bu fekkee war nga mën am pharmacie at bu nekk war nañ la xool boo waree am ñu defal la. Mm-hmm. donc foofu position syndicat bi dafa leer. Mm-hmm. mooy chaque année at bu nekk na arrêté bi a ñu bàyyi euh, pharmacien bi dem defi. Euh, compétition bu gañee ñu accompagner ko mu ubbi ndax encore une fois defuñu ko pour pharmacien bi dañ ko def pour population bi suñu position loolu la ci. Mhm. maanaam at bu na na arrêté yi di génn ñuy permettre jeunes yi de s'installer. Mhm. Euh, yenn saa ñu dégg un jeune pharmacien fii ci beneen wàll bi euh, ñu dégg un jeune diplômé dafa am jeu de mots wala les deux termes ñoo ñoo bokk signification. ñoo bokk signification. Mhm. waxin la rek parce que jeune pharmacien jeune diplômé euh, pharmacien qui exerce mooy le docteur d'état en pharmacie. Mhm. ku pare sa formation ba université ne la yow tu es digne d'être premier au grade de docteur d'état en pharmacie kooku moo am ki nga xame ne jeexalul jàngam. ala kulli xaal mënul am autorisation pour s'installer mhm. mën na nag liggéey mën nañ ko jël fenn muy liggéey mhm. mais li am mooy docteur d'état en pharmacie mhm. mën nañ ko tuddee jeune diplômé ñu wax jeune pharmacien mais li am mooy docteur d'état en pharmacie maanaam ku université yi nga xam ne état du Sénégal reconnaître la leen diplôme ne kat pharmacien Euh, mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen ngi déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di docteur assan Diop docteur Assane Diop nekk secrétaire général euh, du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal docteur Assane Diop nag xam naa dañuy des ci wàllu woowu waaye dañuy rebondir ci li nga xamante ne moom moo di phénomène euh, d'actualité bi ngeen nekk syndicaliste di défendre les causes et ak it ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngat ci lépp lu jëm ci wàllum euh, syndicat bi rawatina lépp lu jëm ci wàllum pharmacien il fut un temps euh, doon ngeen défendre euh, benn dossier bu ñuy wax le dossier de la pharmacie dakaroise d'ailleurs am na rebondissement sax ba moo waraloon ngeen amal conférence de presse ngir édifier askan wi ci situation bi fan ngeen ci toll en 2020 la woon wala 2021 mu mel ni boobu ba léegi lu nekk eh, jaar na fi tey boo ñu doon fàttali li ñuy duppee eh, dossier de la pharmacie dakaroise euh, pour rappeler auditeurs yi rek lan moo nekkoon euh, jafe-jafe yooyu lan nga ñu ci mën a wax mu gën a yaatu docteur Assane Diop. waaw euh, ñun deux mille vingt. deux mille vingt def naa septembre novembre deux mille vingt la ñu docteur Aïcha Goudia Mbodj. Mm-hmm. indil ñu requête ne ñu ñun syndicat bi bëggoon ngeen jàppale ma parce que fa ma nekkoon muy immeuble indépendance sama bailleur maanaam ki ma luye woon di IPRES ni ma woon da ngay génn ndax dañuy defaraat bâtiment bi tey transfert nañ fa beneen pharmacie. Hmm. ñu waxtaan ak moom mu jox ñu li ci war yëpp. bi ñu exploité documents yi dañu gis ne IPRES bi mu naan ko génnal defe naa deux mille quinze su ma juumulee. Hmm. bindoon na ñi mu war a bind ñëpp maanaam bind na ministère de la santé informé ko ne ko man kat dañ ni mën naa génn ndax dañu defaraat bâtiment bi def lu ni mel ak direction de la pharmacie et du médicament lu ni parce que métier bi kat ñooñu ñoo ko ŋànk ñoo ñooy suñuy kilifa. Mm-hmm. waaye yamu fa mu dugal dossier de transfert genre li ñu mën tudde déplacement provisoire ndax kat il faut mu eggale liggéey mënul xaar ba immeuble bi mm-hmm. mu dugalee demande boobu ñu ngi koy dugal direction de la pharmacie et du médicament. direction de la pharmacie du médicament daak gis ni dossier bi mat na mu jébal ko ordre des pharmaciens ordre des pharmaciens joxe avis favorable maanaam nangu ne nangul ko mu déplacer pharmacien wante ñoom bi ko paree ñu delloo ko direction de la pharmacie moom mu toog di xaar direction de la pharmacie bañ ko wax dara. Mm-hmm. ba mu xëy suba ñu ni ko teg nañ fa keneen. Mm-hmm. donc moom en tant que pharmacien la mu waroon def fépp def na ko. Mm-hmm. parce que loolu bu amee loolu mu topp ko. loolu mooy mbir li jëm ci mbirum secteur pharmacie. Mm-hmm. digganteem mook maintenant ki ko luwe. Mm-hmm. moom tamit yamu fa. Mm-hmm. bi ko ki ko luwe muy IPRES ne génnal dafa ni ko waaw d'accord maa ngi dem wante dama lay fàttali ne yoon man la jox droit de priorité maanaam bu ñu paree tant que man bañu ma man maa fi war a dellu si la ñuy tuddee en droit euh, le droit de de, de priorité. mais yamul ci am droit bi def ko exercer li ñuy tudd dafa exercer mooy dafa bindanteeg IPRES ne ko bëgg naa ñëw pare naa pour ñëw IPRES ni que d'accord naa pour jox la ko parce que euh, directeur euh, ki ki sant Meng moo ko ko signeel mm-hmm. ne ko d'accord nañu pour jox la ko ba wax ak moom ñaata lañ ko koy joxe ni que diñ leen la ko jox nga fay vingt cinq mille francs chaque mètre carré moom moo ñu wax ci làmmiñam mu ne benn moment IPRES jox na ko ay technicien pour ñu aménager locale bi ubbil ko fii fenêtre defal ko nii defal ko naa. Mhm. mu toog ba si yàgg bu bindee courrier IPRES IPRES dootu ko tontu parce que courrier bi mu mujj bind IPRES mooy comme d'accord ngeen pour jox ma ko le chèque de costion maanaam pare naa pour joxe caution defal leen ma contrat. Mhm. IPRES ni doo tontu ko ba pis bu ñuy xëy de jox nañu place bi keneen ah bi loolu amee ñun ñu laaj ay juriste. Mhm. muy mbir bu indi ay problème benn bi mooy moom mi ngi kayitam ci place bi ñu jox keneen kayit ci même place bi diggante ñoom ñaar kan yoon di wax na yaa moom place bi mais loolu ñun décidé wuñu dañ ko yóbbu yoon moom wax naa ak IPRES bi nga xam ne mooy bailleur am mu ne ko dinañ la ko joxaat est-ce que IPRES sañ na xëy suba jox ko keneen. kuy ñëw di fa def même activité maanaam génnee pharmacien wala bañ ko jox pharmacien mais jox ko keneen ku fay def pharmacie. Mhm. ñu fàttali ne pharmacie dakaroise mi ngi ci place boobu depuis 1953. Mhm. docteur Aïssa Ngou Ndiam jot ko 1981. bi ñu ko yóbboo cour suprême maanaam yóbbu ne cour suprême ñun si lu ñu xalaat ñun mooy avocat wu madame Mbodji ak syndicat ne ñun si lu suñu xalaat fii lii mënu nekk arrêté bii baaxul dañ ko war a annuler maanaam arrêté bii tax pharmacie nation ñëw foofu baaxul nañ ko annuler mhm. ñu toog ba novembre deux mille vingt et un yàggul donc cour suprême joxe avis ne d'accord naa que ne yéen am dëgg donc arrêté bi ministre bi jëloon pour indi pharmacie nation ci place bi baaxatul annuler nañ ko kon nag xam nga kon am nañu ndam. Mhm. te teewul ba ñu amee ndam kenn dégguñu ndax dañu gëm ne suñu réew réewu yoon la. Mhm. li ñu waroon def nañ ko jël nañu dossier bi yóbbu ko ci yoon yoon wax na. mais à côté de ce de ce dafa beneen procédure parce que boo jàngee acte uniforme OHADA article 127 dafa ne moom mi fa nekkoon tànk bañul wala ñàkku ñàkk déggu amul digganteem ci prix bi nag la ñuy wax wala moom mu ni bëggatuma fa nekk mu mënu ko jox keneen lu dul daf ko fay domage intérêt. Mhm. foofu tamit kan moo compétent au Sénégal le tribunal du commerce. ñu jël dossier bi jébbal ko tribunal nekk nag si suñu xalaat ñun IPRES juum na wala boog bu ko nangay jox keneen kat naam man daf may jox ndàmpaay. dossier boobu ba tey jii vidé guñ ko. et ma fàttali ni tey jii may wax ak yow tey lañ ko convoqué waatoon. gannaaw biñ ko convoqué lépp juróom-ñaari yoon. convoqué ko ni nañ koy bàyyi bu beneen convoqué waat dañu ngeen di ñëwaat woowaat leen da ngeen di ñëwaat def nañ ko lépp juróom-ñaari yoon tey. Mm-hmm. ñun suba rek. directeur de la pharmacie Bintu Daam bi ne ko ah léegi nag yow autorisation ba nga amoon pour ubbi pharmacie nag léegi nangu nañ ko. Mhm. léegi nag mi ngi nii nangu nañ ko ministre signé na ko le 11 février tey le 8 mars dañ daan la dugalal dossier transfert foofu tamit mu indi jiixi jaaxa. Mhm. ndax doo nit nit ki yow amatoo pharmacie waaye transféral sa pharmacie parce que en langage simple loolu rek la. Mhm. bi mu ñëwee tamit syndicat def na mu daan def toog. saytu ko ni ah lii kat tooñ la mais aussi lu garaaw la parce que bu fi amee suba pharmacien foo mënta nekk xëy na nit dina ñëw soxla sa place ñu xam wari koñ xam lu ñuy def ba eh, yëkkati la fa teg fa keneen loolu mooy aujourd'hui li bees si mbir bi muy li nga xamee ne ñun daf ñu bett ba pare metti ñu ndax foogoon nañ ne dëkk bi comme yoon wax na comme moom aussi boobu ba léegi deful lu dul bëgg naa dellu sama place d'accord naa pour dellu mais lu indi ñu jël pharmacie bi nga xam ne tëjoon na lépp juróom-ñaari at ba juróom-ñetti at ni ko léegi yow ma tëjoon yaay ñëw ci place bi moom mi moom mi ko moom ñu génne ko fi duñ ko ko jox. Mm-hmm. ñu ne nag pour ñun un d'accord ñu ci euh, arrêté bi ministre bi jël te mi ngi ko jël ndax directeur de la pharmacie moo ko ko defal moo ko ko bind nag note de présentation moo ko def. Mm-hmm. ñu ne ñun syndicat d'accord ñu ci mais du tee nag dañuy xaar. aussi tribunal du commerce ak procédure boobu jeex. mu tranché procédure pour waaw déedéet pour que euh, contrat bi IPRES defal pharmacie nation yoon wax lan la ci lan moo ci yoon. Mhm. lan moo ci war a mën a nekk. Mhm. parce que OHADA dafa wax ne mënoo man may def fi commerce. nga ngeen ni ma génnal naa damay defaraat defar ba pare jox ko keneen fii def commerce lu dul danga ma jox ndàmpaay loolu ñu ngi ci ñu ngi ci bàyyi yoon aussi di def liggéeyam ministre bi nag. xëy na dañ ko dafa juum wala directeur moo ko nu mu ko mën a waxee mais li ñu wax mooy waroon nañu xaar ba loolu pare ma terminé nag ci gannaaw bu ñu tegee débat juridique yooyu yëpp. Mm-hmm. dafa am chaîne li ñuy tuddee éthique et déontologie. Mm-hmm. mooy lan am yi nga xam ne man waruma ko def sama nawle pharmacien. te bu amee aussi ordre mi ngi fii ak yooyu war nañ taxaw ne ah lii kat du yoon parce que éthique ak déontologie dafa am importance ci suñu métier kon nag ñan ni ñu woo ñaari pharmacien ñu kii ki yow mu new ci dëgg newul ci dëgg yow mi ñu jàpp yaa nekk ci dëgg toogal fa sa place nga liggéey. Mm-hmm. loolu daal su ma ko mënee résumé mooy li bett ci situation bi mooy madame Mbodj nangu nañu abrogé nañu arrêté nekk sax léegi sax yow léegi le comme fa nga léegi indi dossier li yëpp pour lan la rek foofu mu nekkoon ñu mën ko jox keneen. Mm-hmm. Mm-hmm. d' accord euh, tey jii docteur Assane Diop euh, lan ngeen di xaar ci état bu Sénégal ngi ngeen mën a am ay meilleures conditions de travail soxal seen corporation. li ñuy xaar di état du Sénégal mooy am na nañu taxe yi nga xam yu baax la am nañu aussi ay organes de gouvernance maanaam ñi nga xam ne ñoo fi nekk yor kàddu ak yor yor yor ndigal ñooñu aussi ñu ngi fi. suma wax naa ko sànq ordre des pharmaciens mi ngi fi mission xam nañ ko. Mhm. de la pharmacie mi ngi fi mission xam nañ ko. labo de contrôle des médicaments mi ngi fi mission xam nañ ko ñu bàyyi ku nekk doxale selon li la yoon may. Mhm. mu ñu traité tous les pharmaciens d'égale dignité su may wax nag tous les pharmaciens d'égale du ñu installé wax nañ ci sànq les jeunes en pharmacie. ñu xam ne ñoom aussi ils sont la même dignité que man samay moroom ñun ñëpp ñu traité ñu d'égale dignité appliquer les textes dans toute suñ ko defee jàmm am ñu mën a def suñu liggéey mën a jox askan bi li nga xam ne moom la ñuy xaar ci ñun ba pare développer le secteur ba Sénégal mel na yeneen dëkk yi di defar boppam garabam yi bëri daal mu bañ ko jéggaane si bitim réew. Mhm. Euh, bokk na ci tamit ci seen euh, yenn jafe-jafe bu fekkente ne jafe-jafe bien sûr la mooy euh, lépp lu soxal accessibilité wu yenn médicament yi et particulièrement par rapport ak yenn localités yi aussi. waaw effectivement parce que loolu dafay indi ñaari problématique benn bi mooy parce que defaruñu fii Sénégal presque li muy defar ci garab dafa néew lool presque ba amul ndax boo jëlee téeméeri garab yi nga xamante ne tey sénégalais yi moom la ñuy jëriñoo daanaka juróom yi rek la ñuy defaree fii ndagam sax matati na juróom. Mm. ki nga xam ne nag day jéegaane te ñu xam monde bi léegi ni mu demee nga xam ne tey jii bu nekk yaa ngi naan man garab yi may defaree sama réew na naa ko téye pour sama population ba par soogay kay génnee ci ku defarul da am problème. Mhm. ba pare aussi ñu am ay marché yu ndaw ay commande yu ndaw la ñu def par rapport ak yeneen kii mais loolu c'est assez technique mën naa ci bañ a sori. Mhm. mais aussi muy li ma doon wax léegi xam nga euh, dafa am lu ñu wax ñu ne je dis gox bu am lu ëpp junni doomu aadama non juróomi junni doomu aadama. Mhm. war na mën a am benn pharmacie. te bu ñu fay am ay pharmacie tamit bu dee ëpp na benn ñaari pharmacie na am diggante seen diggante na toll ci lii bu mhm. fekkoon ni tey ñu ngi chaque année ñu ngi saytu réew mi fu mu toll eh, population bi fu mu toll di déglu élus yi mais chaque année war ñu mën a génne liste pour que population bi foo nekk am pharmacie mhm. pharmacie bu la jege mhm. loolu la rek ça dafa am problème appliquer les textes problème mu planifier li nga xamante ni mooy euh, les décisions pour que fu war am pharmacie am fa ak le fait que suñu réew aussi dafa xaw ñàkk doole ci li nga xamante ni mooy production maanaam ñu garab li ci ëpp dañ koy jéggaane ci mm-hmm. loolu moo ñu gën a sonal mm-hmm. Mm-hmm. bokk na ci tamit euh, jafe-jafe grossiste euh, répartiteur yi nga xamante ne dañoo bokk aussi ci circuit su distribuer wala acheter di jënd wala séddale médicament non mën naa ne amuñu problème ñu ko ñu fi nekk di mhm. maanaam am nañu suffisamment de grossistes grossistes yi doy nañu pour mhm. def liggéey bi mhm. naam difficulté bi ñu am ñoom mooy monde bi li ma wax léegi moo changé fañ daan dépenser peut-être junni pour garab bi jóge fa mu war a ñëw dugg ci Sénégal xëy na tey nekk na junne juróomi téeméer ba jëm ñaari junni ba xëy na romb na ko ndax am na benn ay jamono avion dawatul woon lépp bateau lay jaar bateau yi doyatuñu maanaam ak yooyu ba pare mu am yenn saa aussi souvent réero ak bu excès bu prix bu ñëwee war a dugg Sénégal mu am réero ak service douane bi yenn saa mu xaw leen sonal tuuti. Mhm. mais en ñi moom pour indi garab bi ñàkku fi. dañu am nag ay ay ay ay difficulté maanaam dañuy yenn saa dañuy jànkonteel ay ay ay problème mhm. pour def seen liggéey comme ni ñu ko bëggee daal mais bu dul loolu nombre bi moom ma amul problème. d'accord justement ñu tëjee émission bi ak euh, question bi ma la bëgg a poser d'habitude dañuy farataal di wax ne eh, normalement pharmacie boo dem war na am benn pharmacien wala am war na am ay pharmacien ak vendeur ñu bëggoon xam ndax li mu jeune diplômé yi. mët na sëkk ba pharmacie boo dugg nga mën a am benn pharmacien bu ko defee patient bi moo xam même bu jàngulee dinañ ko mën a wax médicament bi lan lay faj ak prise yi comment comment comment cela doit se waaw foofu tamit yoon bi li mu wax leer na. Mhm. moom moo tax tey jii ñu ni pharmacien bi da ngay def li ñuy tudd exercice personnel. d'accord maanaam ñu la joxee autorisation. doo du yow yaa war a toog def liggéey bi. Mhm. bu dee am na leneen lu la gànt. ngay jël pharmacien assistant wala pharmacien remplaçant bu dee liggéey bi bare na ba yow rek mënutoo ko def nga jël pharmacien assistant loolu yëpp taxi yi war def wax lu leer nañ te damay aussi préciser que pharmacien ñu ngi ci góorgóorlu bu baax a baax muy Dakar a feneen foo dem di nga am pharmacien titulaire di nga fa fekk ay pharmacien remplaçant de pharmacien assistant to bu pharmacien bi aussi yàlla def mu gën àdduna. Mm. obligatoirement dañuy wu pharmacien takk fa. d'accord wala bu waree tukki lu yàgg léegi nag li mu pharmacien yi doy na effectivement pour assurer la mm-hmm. pour doy na ba bu ñu recruter woon xëy na ni ñu ko waree doy na aujourd'hui ba pharmacie boo dem war fa fekk pharmacien bi ci boppam ak ay assistant wala moom bu fa nekkul assistant yi ñu ngi fa. Mm-hmm. Euh, waxtaan wi am na solo euh, docteur Assane Diop waaye mu mel ni li ñu cëraloon ci waxtu bi yegg nañ ca. waaw euh, jërëjëf dëgg la ndax dañu yor métier bi nga xam ne aussi yoon dénkuñu li nga xam ne ñi bare dañ ko xaw a réere biir mbirum garab mbirum secteur pharmacie toujours dañuy sawar di ñëw di si waxtaan ak askan bi ñu comprendre bu baax secteur bi ndax boo koy seen da ngay jàpp ni lu yomb la wala lu ñëpp mën a def la. mais lu xaw a compliqué la ba pare Euh, organisation bi vraiment euh, comme Sénégal ñu ko may force mooy texte yi mu am bu ñu ko appliqué woon tey du ñu am benn problème ci mbirum ci mbirum pharmacie. Mhm. Mhm. seen cri de cœur par rapport ak trafic euh, illégal de médicaments bi lan nga ci mën a wax laata ñuy tëj émission bi. waaw mooy rek nañu appliquer encore une fois li nga xam ne moom moom la yoon may ñi fi taxawal ñu ni tuddee leen ñun les forces de de de de sécurité et autres. Mm. maanaam direction de la pharmacie ministère de la santé bu ñu defee lépp li nga xam ne moo war. douane police gendarmerie service d'hygiène def li leen war commerce def li ko war ndax ku nekk am nga ay outils jàpp naa ne soxla buñ sax ay médicrime wala yooyu war nañu mën a xeex li mu jóge fii di cri de kër bi mooy ñu nguur gi jàppale mm. autorités yi ñu jàppale euh, poser des actions fortes mm-hmm. ndax li muy lor ci doomu aadama yi bari na Euh, boo ko laajee médecin yi dinañ la ko wax et que cri bi daal mooy nañu jàppale bu baax li jóge fii pour que nit ñi mën a nekk ci wér gu yaram. Mhm. Euh, sant ko gërëm ko moom docteur Assane Diop euh, docteur Assane Diop nekk secrétaire général du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal ma fàttali ne moom docteur Assane Diop moom moo nekkoon tey suñu invité si suñu émission bi di SOS santé def na plaidoirie waaye mu ngi fàttali ne ci mujj bi rek xam naa ne jotuñu ci wax. baax ndax eh, li ñu cëraloon ci waxtu wi dañ ko dafa daal di jot mooy li nga xamante ne moom moo di faux médicament yi am na ay gàllankoor yu jéggi dayoo yu mu mun a jural eh, doomu aadama bi waxuma sax ci composition bi mais amaana ma sax ni mu koy jëlee mun na ko jural ay ay ay ay jafe-jafe temps bi moo ñu xoj ni kon ne doon nañu waxtaane ci partie bu gën a yaatu ci aspect boobu tamit fàttali ne yéen a ngi doon déglu seen émission bi di SOS santé SOS santé Fatou Baba micro bi Bachir Cissé nekkoon ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité